jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb wasaare TV mbokk yi euh, miin ngeen xar kanam gi ñu dalal naam muy Serigne Idrissa Ndiaye sëtal ak Daawur nekk nit koo xamante ni ku yàlla baaxal la mu yëngu ci wàllum ñaan ngeen xam ko bu baax a baax a baax ay nag dañu fas yéene laale laale boo xamante ni laale bu am solo la bàyyi jiri sa Idrissa xam naa du yomb bu ngi ree waaye du ma ko may dara te lu ma may lay nuyu baax di la siyaar auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi ñu sante yàlla juli si yonent bi ah, di la wax salaamaaleykum Baye ñu ngi lay dalal naan la bisimilah jàmm ah, di nuyu waa Sénégal di nuyu sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa di nuyu fukki penc yeeg ñaar di ñaan si réew mi jàmm. Mm-hmm. Eh, yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi waaye yow moom at bi ni nga ko ubbee <laughs> neexut ci yow de parce que idi mi ñu xamoon. Mm-hmm. idi lu mu wax mu am. Uh, lu mu wax ñu gis ko uh, lu mu wax sax mu am yàlla moo ko yàlla moo ko moom waaye yàlla mbaaxe na la ci loo wax ci ci ay jamono ñu gis ko ñu gis premier janvier at bu bees mm -hmm. Idrissa Ndiaye ni Balla Gaye day daan Bombardier idi ba Bombardier mu mujjee daan de ñëwal alhamdulilah ñu sant yàlla julli yonent bi. Mm-hmm. vidéo boobu man na six mois. Mm-hmm. Mm-hmm. na six mois sun euh, Seneweb la woon. mais yaa ko wax rek. waaw defal nank rek. wax moom balaa moo neex. kii wax leeralal la. et damay assumer wa encore tamit ah. du nëbbatu li may wax. li ma jox c'est clair et net je suis né à Guédiawaye. doomu Guédiawaye la Balla Gaye day daan Bombardier je supporte Balla Gaye 2. loolu nga wax. te bi ma ko première premier combat Balla Gaye bi la bi ñu reporté deuxième combat bi kenn dégg ma micro waxuma ci mooy bi ñu daanee Balla Gaye. kon da ngaa bëgg wax Idi mi wax en tant que fara supporteru Balla gay moo wax waaye du Idi bi nga xamante ni xam nañ ko ci wàllum ñaar Idi sa tur daal. Ah, kay bi may wax dama wax dama préciser dama préciser wax li may wax. dama préciser ne leen je suis né à Guédiawaye doomu Guédiawaye la non mais Idi loolu ànduma ci en mm. tant que ñaankat. non non mais fooy far non si. ba ba xam nga xam nga lu tax man la am na droit far si Balla Gaye. Mm. àdduna ñëpp xam nañ ni nit ku nekk am nga foo far. tey mu ngi nii damaa far si Balla Gaye far si Modou Lo àdduna loolu dañ ma koy dañ ma koy nangul. kon Bombardier bu ñu woon ci yow pour nga ñaanal ko doo ko ñaanal. non muy tasanteeg Balla Gaye muy tasanteeg Balla Gaye waaw du ma ko liggéeyal. mais ma jox kon mm-hmm. mm-hmm. bi mm-hmm. ah. ki ka nga bi muy bi muy bëre bi muy bëre combat combat combat bu euh, di tasanteeg euh, Coly Faye. Balla bi muy tasanteeg Ousmane Diop. sama buntu kër ak fa mu loon ngémboo benn la loolu dafa yàgg soo gisee ma ne la tamit léegi damay mudloo dama ko faral hmm. dama fa may am di jàmm yoo xam ne damay ànd ak ñoom damay sëkk ak ñoom teraanga damay sëkk ak ñoom leneen ak leneen ak leneen hmm. ay kilifa yoo xam dañ ko jege hmm. ay nit ñoo xam ni kenn kese laa si cité chaque jour su ngeen ma la Demba laay cité mais am na ñoo xam ni ay ñu si wàllu sport bi te dañoo jege muut te samay xarit lañ dañoo yegg foo xam ni tamit am na loo xam ni tamit euh, gor su nekk gor nga foofu laay waxee mais suñ ma dékkaatoon micro bii laa la wax nii laaj ma hmm. si combat Balla Gaye hmm. Bombardier hmm. man leen Balla dafa nekk si néeg bu lëndëm te audio ma wax la ak loo xam ne maanaam tam jour bi ma bi ay nit di ma laaj si combat bi dama ko capture dama ko def lépp envoyé waat ko waa Seneweb ne leen waroon ngeen ma laajaat ba pare man leen déglu leen li ma la envoyé leen ko xam nga WhatsApp du fen soo defee maanaam heure bi dañuy xam ban jour la kenn na nax kenn si ay audio pourtant dama leen wax sax ba wax leen décision arbitrage Hmm. <laughs> pour ma wan la ni. Idi tey daa décidé de. Idi Idi tey kenn du ko yóbbu vaar bu dem. te man ak sama nijaay ñoo ci loon waxtaan. Hmm. Euh, mu ngi nii. nga gis lan. Euh, defal nank rek. ah di ko génnee waaye dañu dañuy dañuy waxtaanaale Idi tey boobu. man ak sama nijaay ñoo ci loon waxtaan. Hmm. yàlla xam na ni fii la wax ji commencé. déglul bu baax li li may wax mu ngi nii. delluwaatal ci audio bi nga teg ko ci micro bi ñëpp de. mu ngi nii déglul. arrière ko. ñu ñu jox ko par victoire par décision arbitrage kenn naa par gisoo loolu. Hmm. pourtant noonu la làmb ji taxawee. noonu la làmb ji taxawee maa ngi koy waxtaan fii léegi si biti ma ni. Hmm. dama gis Balla Gaye si jafe-jafe lëndëm. Hmm. mais day làmbatu. Bombardier nag fi mu taxaw benn morso bu benn affaire bu weex moo nekk si yaram muy rulle loolu leer leer la. Balla nag mën naa dem ba sa biir làmb ji xam nga ñi mu ànd. xam nga lii waxtaan la man ak sama nijaay ñu ciy waxtaan. Hmm. biñ ne suba la mu ngi nii 31 décembre la. xam nga 31 décembre ban heure. décembre mu ngi nii mu ngi nii 31 hmm. décembre. 21 vingt et une heures vingt et une heures vingt et une heures vingt et une heures man ak kon la veille du combat. la veille du combat. Hmm. man parce que combat bële bi ma ciy wax. boobu Balla Gaye dafa moomoon làmb ji da ko téye woon. Hmm. mais bii man pare woon naa dama foogoon ñam su passé rek passé na. Hmm. comprendre nga. mais su ma xamoon ni maanaam su combat jeexee dañuy génne sama vidéo boobu man ay di dama ko envoyé sax dama da nga wax si làmb man leen non non wax ma si làmb ji. ma xool man leen lii bu yàgg balaa. mais nit ki su waxee si dara amul. su loolu jegewaatee ne kat sëñ Idrissa lii wala laa wala lee. mais yow bi ngay wax combat bu ñu reporté lu tax gisoo reporté. combat bi nga gis ni Balla gay day daan Bombardier ñu baal ma. Mhm. man xooluma pour combat dañ koy reporté. Mhm. en tant que sama mbër. te suñ ma laajoon bañ ne suba la combat bi ma wax leen li ma gis ne leen sama mbër fi mu jàpp baaxul. dama leen ko muy leer parce que Balla gay laay supporté mais nag wax dëgg tamit du ma teree ma koy bañ wax parce que maa ngi woon stade Mm-hmm. làmb ji dem naa esat falaa ko seetaanee mm-hmm. ñoom góorandooy gis nañ ma président des jeunes amateurs man ak Mar Ndiaye a àndoon esat mm-hmm. j'étais au stade kon am na loo xam ne mooy loolu buñ profité si benn fee rek ñu bëgg a euh, ñu bëgg ñu bëgg gaaw naan vaar vaar non non du vaar kon yow kenn a la vaar déedéet même buñ la fa bëggoon yóbbu doo dem du ma fa dem xam nga tax du ma fa dem waroon nañ maa laaj ba pare nañ ma laaj Mm-hmm. suñ ma laajee nag su ma waxee lu méngoowut ak li ma waxoon. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ak yonent bi su leen neexee ñu yóbbu ma vaar loolu bañu ko. dëgg la ah, mais nag loo xam ni ba ma ko waxee le vingt cinq ba la. le vingt cinq bi biñ njëkkoon jàpp mu mu mu mu ñu amoon ay affaire Covid bee taxoon. waaw mm-hmm. ah, mais. ñu indiwaat ko nañ ma dékk micro rek wala waa wasaare ñëw dékk ma micro. léegi comme demoon nga làmb ja. Mhm. gis nga Balla Gaye mhm. jël bi ko Bombardier daan. mu mhm. doon jël boo xamante ne jël bu rëy la. Euh, ci làmb ja. bi nga dugg gis ñaari at la di. en tant que ñaankat. ci rawaan yi ci kan la gënoon jublu ak moment bi muy jublu ci moom lan nga gis ni rawaan jublu. wax wax wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. Hmm. bi ma gisee Bombardier ñëw wane ginnaaw. Hmm. and ak benn sëriñu pël bu sol hmm. yére bu sokalaa hmm. ñun boromi baatim lañ yàlla may nañu hmm. xëy na nit ki mun nga ñoo gis nii rek mais am na lu yàlla may bi waa ji jatee di génne si quatre coins yi génne li muy génne di sànni mu ñëw yor benn laspeeram jat benn ceeli di ko traversé muy jat ceeli bi ba ceeli bi génn si laa ñi ma dendal ma leen carrément làmb ji actuellement mu ngi si loxo bombardier te li ma gisoon démb ci guddi laa gisaat ba tey bombardier moo taxaw moo am ndam ne leen mooy balaa bombardier di ko daan fii fa ma toog di foog kii dem ardo ba pare foog Balla naaj ba pare après ñu doog ko jox décision arbitrage man noonu laa gisoon. non action bu njëkk bi site am na. non site am na mais maanaam la nga la nga gis xam nga site boobu après lañ koy doog a mhm. xam nga site boobu après lañ koy. Mhm. mais la ma gisoon man man mooy décision arbitrage boobu te loolu mhm. moo ci am. la. waaw mais ku xam Balla Gaye jour boobu xam ni Balla Gaye ah wax dëgg yàlla ak Hmm. mais des naa am ay sëriñu làmb jour boobu. Balla Gaye jour boobu. waaw kon da nga bëgg a wax Balla Gaye jekkul woon bis boobu. no su jekk woon la xew yëpp du ko def. Balla mu jekku rek wax dëgg yàlla ak bi làmb ji dina demee neneen. mais Idi Balla bàkku na. Balla yëngal na Balla def na. lan moo tax à chaque fois ñaata mbër fi ñëw def ko daanoo rek gaa yi wut prétexte. non dañ euh, ñaata mbër non doo man wutalu ma ko prétexte wax dëgg yàlla ak yonent bi. mais hmm. ñaata mbër fi ñëw bàkku ñu daan la bari na. Hmm, mais maanaam na xoolaat boppam na xoolaat doxalinam. moom kan moom Balla na xoolaat doxalinam doxalinam nag waxuñu comme di gars yi génn fan yi di wax naan Massamba ak Massé déedéet doxalinam moom en tant que mbër mi. Mhm. li manqué si moom moom mu def ko ci moom. lan moo manqué si moom. xam nga xam nga man euh, euh, euh, je suis mal placé pour parler. kon da nga bëgg wax Balla Gaye 2 amul gàllaaj. non waxuma gàll waxuma cadre gàllaaj non waxuma cadre bëreeg Yaxya Jóob Yékini am gàllaaj moo ko bàyyi bëreeg Tapha Tine ñi ëpp mystique ci lamb ji Balla Gaye bëreeg ñoom jili ma dama la mhm. combat bii combat bii mhm. lam inni des na kon kay bu ñu ko wax dama ni la combat bii nii lam mhm. inni des na kon fi mu doon dem dematu fa ah xaw ma loolu rek moo mun a bu fekkee Balla mi amoon ngemb bëreeg Modou Lo bëreeg Gris Bordeaux bëreeg Tapha Tine. Mhm. Balla moom moo ñëw mu am lu manqué mooy fi mu doon dem dematu fa rek. waaw de ce fait xam nga xam nga mooy maanaam xam nga tey gars yi mbëri moom. Mhm. tey ñu dugg fii suba duñ dugg fee. Mhm. wax dëgg yàlla ak bi. waaye nag combat bi wax dëgg yàlla ak bi. des na daal. carrière Balla Gaye actuellement nan nga ko gisee li des ci trois combats yi mu am wala quatre combats yi des ci kanamam. man de li ma ko ciy wax lenn mooy. Mhm. mu gën a yokk entraînement am. moom Balla. Mhm. ndax keroog loolu feeñ na si làmb ji. amul woon entraînement. non waxuma amul entraînement. entraînement dafa des keroog dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko mal mëne trop ñuy seetaan dañuy waxante dëgg sama mbër la. Mhm. mais dañuy waxante dëgg keroog dafa des. Balla Gaye li mu doon indi dëgg si làmbam si wàllu coffre si wàllu physique soo xoolee contre Gris Bordeaux endurance bi mu nga xool contre Modou Lo endurance bi mu indi ko contre bombardier. mais endrance bi mu indi contre Gris Bordeaux état bi mu indi ñëpp nee nañ état boobu mooy état bi gën a bon bi ñu gis ci Balla Gaye 2. <laughs> état bii ma gis nag barkaati Demba Ndiaye baaxul ci man ku nekk sa gis-gis. état bi arrangé wul. non non non. boo sañoon sa mbër defaruwaat. su ma sañoon mu gën a nekkaat comme Balla bi ma xamoon su ma sañoon mu gën a nekkaat comme contre Modou Lo deuxième combat bi. dëgg nag moo neex yàlla. Mhm. ñun waxuñu ko ngir leen dañ koy wax ngir defaral ko. B52 noo ko gisee. waaw gis nañ ko nag wax dëgg yàlla ak bi mbër bu ko si mbër bu si entraîné wul doo ko daan. Bombardier. Mhm. mystique mbër bu ko si respecté wul tamit doo ko daan. mystique. mystique am na si làmb. Bombardier am na mystique. am bu baax. rawaanu lan la am. non fii képp kuy képp kuy bëri si géewu làmb yaa ngi rawaan. yaa ngi lépp mais Idi li ma jaaxal Bombardier ñett sengoor lay indi quatre butéel. sottee kooku du takk du niin du def dara te boobu day daan gars yi ñaan daa am ngem waaw mais ñaanu ñaan ñaanu bor euh, ñaanu baatim day am des fois maanaam say bagage mun nga ko sangoo sa kër mhm. des fois bagage yëpp mun nga ko sango sa kër waaye nag nit ku nekk ak na nga yàgg bëre rek moom noonu la yàgg bëre ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla na ko ndam li jik mhm. waaw di nuyuwaale benn xaritam bi nekk ba France Sarr saar moom sama waay la saa nga fa tey moom mooy tooñ. Hmm. waaw di ko nuyuwaale bu baax a baax di wax ni làmb la sport la mooy loolu ñoom ñaar ñoo mën a xaalis. Hmm. Hmm. yow yaa ngi ba Gambia. dëkk boo xamante ne vraiment événement wu làmb lim la fay fekk bari na. bu la làmb fekkee Gambie. foo koy seetaane ak ci lan nga koy seetaane. waaw làmb moom su ma fekkee gàmbi des fois sama copain nekk fa Jamaïcain mu tëgg. ma dem assister ko ànd ak moom ba si bis bi jàppale ko. su ma si paree delluwaat sama kër. lamb ju am Sénégal laa wax. Mhm. nga di ko seetaan Gambie noo koy seetaanee. waaw non foofu xam nga sama kër am na mhm. mhm. ah, nekk fa liggéey fa laay ma toog Sénégal bëri na te am na client yoo xam ne ñu ngi toog Gambie dañ maa soxla dañ maa yàkkamti boobu ba tey. wax dëgg yàlla ak yonent bi. lamb ak code. pay per view. nan nga ko gisee ci lamb. waa lamb ak code ak pay per view moom wax dëgg yàlla ak bi dafa metti Hmm. metti gi mooy lan maanaam tey soo waree dugal sa code des fois da ngay dugal connexion bi du neex. des fois hmm. nga jënd ko avant jour ji avant jour làmb sax. Hmm. nga koy utiliser connexion bi du neex. donc ce qui fait ce qui ce dire que war nañ xoolaan maanaam yeneen jumtukaay ba euh, sponsor yi ñëw. sponsor yi su ñëwee làmb dina gën a mën a dox dina mën dem dina gën a mën a dem ci kanam. kon yow télé ak pay per noo ko gisee. man télé ma dàkkal. moo la dàq. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon boo sañoon làmb delluwaat ci télévision yi. sañoon làmb delluwaat si si si télé yi gars yi jàpp si ak gouvernement bi ñoom ñu ngi ci war a jàppee ñu jàpp si. fan yi gis na ñaari promoteur suñu papa Gaston ak suñu papa Luc Nicolaï. fan yi dégg nga euh, Luc Nicolaï moo njëkk a def point de presse. Uh-huh. wax wax ji nag daf ko wax rek sànni. Uh-huh. mais wax ji dafa mel ni per Gaston daf ko jël mel ni moo wax ji da ko moom. Uh-huh. wax ba ba attaqué waat père Lick ñoom ñaar ku ci nekk di échangeante sa morom parole boo gisee loolu lu lay def ak nan nga leen wax ci ñoom ñaar. wax dëgg yàlla ak yonent bi mënoon nañ boole seen say. takkandoo seen say àndandoo dóorandoo gorandoo. idi loolu ànduma ci. xam nga lu tax loolu mu war a nekk. Ah. ñoom ñaara fi des di tëgg làmb. Mm-hmm. si li ma ndax gisatoo fi Petit Mbaye gisatoo fi Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye léegi euh, mu ngi ci côté Balla Gaye di ko hmm. jàppale. Hmm. donc su Gaston desee Luc Nicolas Enco des fi. Hmm. te soo xoolee combat yi gën a mag yëpp Gaston ko tëgg. soo xoolee Luc affiche bi gën a mag ren mooy Ama Baldé ak Modou Lo. combat boobu ngay gis ñëpp di ko xaar muy le treize euh, mars. Euh, mais xuma mars. mars le treize mais ñoom ñaar ñoo ñoom ñëpp ay doomu réew mi lañ. waruñoo nangu wax ju sew di aw seen diggante. parce que ay kilifa lañ ñoom ñaar war nañ mën a gisante régler seen i problème wala régler seen i leneen ak leneen ak leneen. non Idi loolu mënul nekk parce que ñoom ñaar ñoo bokk même li ñuy défendre Idi est-ce que yow ak Serigne Sepp da ngeen a am jàmm bi ngay wax ci Gaston ak Nicolas. man wax dëgg yàlla ak yow Serigne Sepp laa am ak jàmm de ku amul ak man jàmm mooy ñan. Hmm. ñi ma mënut a digérer. ñi ñi ma mënut a digérer mooy lan. ñi ma mënut hmm. a digérer mooy lan. Hmm. ci wàllu yàlla li ma defal. sag gi ma defal teraanga gi ma defal ak sutura gi ma defal. ak bañkat gi ma doon moo tax ma bëri ay noon moo tax ma bëri ñoo xam ne bëgguñu ma. ñëwal dina ñëw ci Gaston bi euh, dinañ ñëw ci Gaston beeg Luc Nicolaï bi. ci sëriñ soosu suñu paree ñu ñu jubal foofu ndax mhm. fan yi am na ku ba bëgg a rey Gàmbi fan yi moom moo jël sa ñaar gaa yëpp moom <laughs> ñëpp ci moom la ñu daw <laughs> ak ji ba moom indi moom taayi Gàmbi jaratoo fa dara léegi ñëwaatal ci Luc Nicolaï ak ak Gaston bi nga ni léegi boo leen doon dénk loo leen di wax. su ma leen doon dénk daal li ma leen wax mooy ñu bokk ndey bokk baay. Mhm. xam ni réew mi mu jàmm la lamb ji làmbum jàmm la ndax su kii demee côté bee kii dem côté bee làmb ji du du jag. Mhm. kon nag ku si nekk war ngaa mën a ànd liggéey. Mhm. war nga mën a gis sax sa sa nit jël jour boo xam ne enragé ko yow nga yor beneen jour boo xam ne mooy lool nga jox sa morom jour boobu. li nga war lekk balaa ngaa dugg si pax bi ngay fanaan incha allah balaa ngaa dugg si bàmmeel di ko am. ñu ñëw Gambie. Mhm. fan yaa ya instant yaa ngi nii dëgmal yoonu bi incha allah xam naa waa Gambie nañ la xaar Idrissa Ndiaye sëtul ak daawar bi dina ñëwaat foofu. Mhm. waaye fan yi moom am na ku fa ñëw ba président bi sax dalal ko. Mhm. taay ba tey moom kenn premier ministre sax mosul laa dalal. taay ba bi am na ku la fay gaañ moom. kan kan moo fa ñëw ba président bi dalal ko. mooy kii nangu beeke beeke gars yi rek handicapé yi nangu seen beeke ne leen doxal ñu dox. kan la ah non wax ma kan la xaas. <laughs> waaw kooku kooku. <laughs> Ah. Euh, euh, sëñ euh, sëñ Ablaye sama xarit la. Ah, yàlla yàlla moo ñu boole. moom moom gaa bi de. waaw mu doon nit ku baax. Mm. comprendre nga. Mm. mu doon nit koo xam ni dañuy déggante téléphone. Mm-hmm. dañuy waxtaan xëy na des fois jot gi du ko may. Mm-hmm. daf may message WhatsApp dañuy échanger tamit. Mm-hmm. daf may conseil lu bëree bëri si àdduna. borom Gàmbi. waaw dee ko ci loolu borom Gàmbi. waaw moo ma xaalal rek ma dem. sëñ Ablaye Diop xaas borom Gàmbi. waaw xam nga moo ma xaalal ma dem. xam nga nit ki soo baaxee rek. parce que moom yàgg na fa. tëgg mhm. yàlla ak yonent bi avant Sénégal di xam foofu la nekkoon. Mhm. kon réewam la. Mhm. kon beneen sëriñ bu fa dem rek dalaa dalaa dalaa xàllal. ah te ñu ngi koy ñaan nag comme que suñ fa yeggee jàmm. mu dalal ñu lam fa xam si ay soppeem ñu am ay jafe-jafe suñu booleeg ñun incha allah ñu saafara o ci kàttanu yàlla. temps yi moom am na beneen sëriñ xaas moom moom Gambie mais ki xam nga de. Dakar nag may borom. non bu wax loolu. idi non déggoo lu ma xanaa. yow yaa moom Dakar Ndiaye. sëtum dëgg Daawur toog di wax ak yow. borom fukki penjeeg ñaar toog di wax ak yow. nga ni keneen a war a moom Dakar déedéet. non ki moom Dakar mooy ki nga xamante ni jàpp na ne buy ñaan daawar a jël roppalaan mu naaw ba ci kaw. tiim ñëpp. mu leen di ñaanal te idi defagoo boobu de. déggoo la ma xanaa gis nga gis nga gis nga birum ñaan. we boo weddee laajal. laajal kii lu mu tuddati. animateur bi ko fi tuddal loxo yi leewi. gis nga mbirum ñaan. jëwal nekkul kamikaze wala ay def loo xam ni maanaam maa def lii wala maa def laa. Mm-hmm. gis nga ñaan. Mm-hmm. dimbali doomu aadama njaay ba pare la. ñaan dafa bëri façon. Mm. nit mun na ñëw fii billaahi wallaahi wa taalaahi dara dal ko ma teg sama loxo du ma ko jox dara ma teg sama loxo mu wér pourtant nit jinne nga koy dugg ak rab muy sonn di yuuxu ñu yóbbu ko fu ne ñu indi fii ma teg sama jëb yi mu dañ. Hmm. mayub yàlla la maanaam vidéo yaa ngi ma ñi may ñi may ñi may faj ci wàllu boobu bëri na trop trop. vidéo yaa ngi fi comprendre nga. Hmm. dañuy dañuy si nekk la la yàlla may rek. ku si nekk la la yàlla may Idrissa Ndiaye si géej gi lay taxaw di ñaan muy am Idrissa Ndiaye day toog këram gi di ñaan muy am ku nekk la la yàlla jagleel rek moom la ko yàlla jagleel moom mooy tiim nit ñi di ñaan. moom mooy kan. xaw ma ki nga xam <laughs> yaa gën a xam turam. Serigne Fallou xam na ni barki Serigne Fallou xaw ki nga wax. borom yàlla kese. yàlla point amul leneen. kan Moustapha Dramé. <laughs> yaa ko eh, kon xam nga ko. yow xam nga xam nga danga may tiddal. Ah. man soo ma nee Ablaye Diop xaas dinaa sawar développé si moom. Ah. ndax nit ku baax la. Hmm. soo ma nee sëñ Pape dinaa sawar ndax nit ku baax la. Hmm. gis nga kooku on a pas de de problème man ak sa sa euh, waajooju ku baax kooku. xam nga bala kañ laay mun a tontu question wax dëgg yàlla ak yonent bi. Hmm. ñu boole ñu plateau comme ni ñu boole woon 2S mu bañ a ñëw. confrontation. ñooñ ñoon di si wax kuñ si ñemee rek nañ ma boole moom confrontation. nga def ko lan. non du du question def dara day toog ma toog man ak moom am na fuñ jaar. billaahi wallaahi wa taala mu may seetaan. fan ngeen jaar. non fi ñu jaar du déggal ma du ma si sawar a. toog da ngeen xeex yéen ñaar. non du question wala da ngeen a bokk ku ngeen doon ñaanal nga am ndam ci kawam. bëri na bëri na bëri bëri fii bëri na kii day dem fii du fa gis résultat ñëw si yow loolu bëri na. parce que ku nekk maanaam yàlla suñu borom fa koy sottalee rek tuddagu ko des fois nga gis nit ñëw naan sëñ Idrissa dem naa fii man ne ko déedéet bul tudd nit kenn di ko wax leen yàlla moo leen juboolewul man mii tamit mun naa la ñaanal du sotti ñaan du loo xam ne dangay ñaanal nit rek mu sotti tey borom daraja yaa ngi fi di ñaanalaate dañuy échec. mais yéen nag. bari na ñoo xamante ne yéen man. non non mais Idi yow am na ay message sëriñ yoo xamante ne mu ngi sa téléphone bi waaw ñu ne la diw mi daf ma dóor lekk sama xaalis ba léegi ñëwul. <laughs> waaw dëgg la niñ koy defee ci yow mi noonu lañ koy defee ci beneen sëriñ. waaw yàlla nee na ñëpp seen message mu ngi demante. non man sama message dem déglu ma non man sama message demul fenn. ndax lekkuma alalu jàmbur. je bien mes mots. Ah, ban sëriñ moo ci yor audio Idrissa Ndiaye fu mu lekk xaalisu kenn mu ñëw indi ko teg. ko génne rek ay audio gi fii man moom lekkuma dara <laughs> man li may wax c'est clair <laughs> man damay liggéey samay téléphone changé wu ma numéro numéro yi jiili ba nga ñëwee ba tey numéro yi laa yor sama numéro bi ma yor Gambie moom laa yor bañ naa ko ba dañ ma ko identifier kër ga may nekk Gambie fa laay nekk chaque instant comprends nga. Mhm. nag des fois mu boole laa nit nga ñaanal ko résultat bañ a mhm. mais nit ñi duñ ko gisee noonu. nekkul chaque jour résultat day am. Mhm. des fois nga ñaan résultat am des fois nga ñaan résultat bañ am. Mhm. ak ñi nekk bitim réew des fois da leen di ñaanal tamit dañuy yàqamtee jot seeni i bagage ñu foog ni des fois yow da ngay doo am seen jot déedéet. du ma boole ko kenn du ma filtrer kenn du ma wax kenn wax ju ñaaw doo ma envoyé xaalis dootoo ma déggati déedéet. kon kay Idi munoo jooni jooni bi ñuy wax. jege na na gaaw na gis nga gis nga gis nga jege la wóor na gaaw na xam kan moo ko kan xam kan moo ko yor. Hmm. kii tiim ñu. ah mais yéen tamit. da ngeen di bëgg a xam nga xam nga xam nga àdduna. xam nga àdduna soo si nekkee. Mhm. àdduna soo si nekkee. Mhm. waroo waroo jël place yàlla toog ci. nit kuy toog place yàlla rek xamal ni kooku dafa ànd ak seytaane te man ànduma ak seytaane te lépp lu may def su yàlla suñu borom laa ciy jiital. amul leneen loo xam ne maa ngi koy def loo xam ne neexul suñu borom mais li ma la mën a xamal ba xamal la ko. Mhm. client bu jëflanteeg man daal nga teey muy Europe muy fépp di si am satisfaction. ci aay moom sëriñ bi gën a aay moom boo xamante ni moom dafay assumé ay responsabilités am ñeme <laughs> koo koy sant yàlla xam nga sant yàlla. dégg naa ko. loo war xam <laughs> sa benn émission. <laughs> mu ne sëñ idrisa uh-huh. ndeysaan moo gën a tuuti si ñuy liggéey wàllu football si ñu si xam. mais dam li ma xaw a jaaxal mooy. Uh-huh. ku jug Idrissa ngay wax. Ah, ko yaa tee non non teewuma buzz yàlla non dafa naa dafa am loo xam ne jiili. Uh-huh. yow journaliste nga. Hmm. tamit euh, wax dëgg yàlla sa ngay def. Hmm. waaye yow soo musoo toog émission dugal si YouTube bi nga xool ku jug Idrissa lay wax. <laughs> waaw lay wax. Uh-huh. te Idrissa mu ngi fi depuis 2011 ba tey. Hmm. yàlla def ni émission yi ñuy tudd yëpp nee naa leen mennum TFM laa toogul def fa émission émission yi ñuy tudd yëpp def naa ko. waaw kon ku jug ne Idrissa rek dafa fekk ni Idrissa am na lu mu yor de. dafa fekk est-ce que joteeg ñoom ci match. ñu ñu ñu dóor sa équipe. non la ko am na ñu man am na ñoo ma ñu ne ma am na ñu ne ma. Idrissa Ndiaye bokk naa moom mu yor équipe bi ma yor équipe bi ma gagné ko. xam nga lu ndax man dama doon def ba mujj gi ku wax football sax man la yii. non non combat ma jox la exemple. Mhm. combat Balla Gaye bi passé laa tasante ak benn sëriñ rek mu xëcc sama loxo. Eh, saa waay keroog ñoo tasante woon mas Thiès ma ne ko ban équipe mu ne ma Daaru Salaam ak Arcos ma ne ko pourtant yoruma leen mu ne ma gis naa la stade maa gagné final ma ne ko mais yoruma si kenn ñoom ñaar dama ñëw seetaan si maanaam am na ñoo xam ne maanaam ñoom nañ ma seen rek il suffit ñu gën a def lañ doon def. Mhm. loolu da leen gën a yokk jom maa gagné Idrissa Ndiaye ndam la de ndax maa gagné Idrissa njaay gañe nga koo xam ne ku naqaree gagné. yàlla nag defal na ma si football moom alhamdulilah tabarkalla macha allah xanaa man ma bañ a bëgg rek waaye ma bëgg rek ba jug rek. Hmm. ku weddi laajal te Tëngéej gee wala Cees gi ma jug ba bëgg rek incha allah ci kàttanu yàlla ah balaa nga maa gañe de di nga wax lu set. ñëwal ci sant yàlla. waaw dëgg naa ko mu ne maa a tuuti si li xaw ma lan comprendre nga. Hmm. bëgguma di wax si sama moromu sëriñ lu négatif wala leneen ak leneen waaye képp ku ci nekk looy wax rek. natt ko ni sa bopp rek soo ko nattee si sa bopp nga xool parce que am na wax yoo xam dootuma ko tontooti. Hmm. waaw ku bëgg a yéeg dinaa la may loxo waxal Idrissa lu la neex Idrissa dina la may loxo. waaye sant yàlla yéeg na ba pare de Idi. gis nga dama la ñaar nga koy dégg. 2011 ba tey laa la wax jiili. Hmm. amul ndakaaru koy naan Idrissa Ndiaye te xamu ko. jiili ah. dëgg moo neex yàlla tamit. dëgg la askan wi moom ñëpp xam soo fi génnee ne Idrissa ñu ne ñu la lëg daawar Thiès suñu xamee lëg daawar magu Thiès yi xamoon nañ kuy lëg daawar de ndax xujja jaan mooy borom hmm. su ñu xamee lëg daawar yàlla ak Idrissa Ndiaye bi la. <laughs> mais Idi bi am na daawar yaa présenté waa Thiès. déggoo suñu xamee lëg daawar su tullu ndëg daawur cees gi ñëpp naan ndëg daawar ndëg daawar duñ ne Idrissa. Hmm. lëg daawar lëg daawar lëg lëg lëg lëg lëg. Hmm. yàlla ak man la. loolu yàlla moo ko defal nag. mais Idi est que du yow da ngay wut promotion ci lëg daawur. wut promotion fan. parce que dafa mel ni ñu bari nee nañ Idi danaan. jali ngoone tibéeri ngoone liisa ngoone ngoone yaayi jal soog ndoogu ndooy tànnaar tànnaari baay biram buubu gala sumba jum ñaañaati gay gànna juróom-ñaari gay gànna yeeg gànna yaayi sooy nga ne ma damay wut promotion doon sëtu Alburi Njaay doon sëtu kumandaama Mbooj nga naan ma damay wut promotion dama <laughs> damaa juddu si suuf si bëtt si ndox mi naan si ndox mi lekk si cere bi nag non Idi gaa yi nee nañ lëg daaw du sa maam. déggoo lu ma xanaa da dem la ma mën a def déglu ma. maax la hmm. nga demal nga dékk aji mbay bu sañ-sañ bokk ak mbay gay fay nga laaj ko lan laa ci ndëg daawar mu tontu la. demal nga dékk jaraaf Youssou Ndoye nga laaj ko lan laa si ndëg daawar bi fi kunkaande di def li muy def lan la leen wax. sa Ndiaye su jum lay tuur maa ngi koy ñaan moog nijaayam yëpp nañ ko bàyyi mu ñëw li ma waxoon si kunkaande du xar géej. du fi teg tànk te bis bu fi tegee tànkam oto ambulance moo koy jël si. bu tegee tànkam fan. su tegoon tànkam Soumbédioune maa ko wax. vidéo yaa ngi fi. lan la da ngay boole ñu ko faagaagal. déedéet. loo bëgg <laughs> loo bëgg ci moom. boobaa lañ doon xam ni ba xam ndëg daawar sama maam la wala du sama maam. ah mais moom sax Kounkandé moom malgré moom sax jëloon na décision moom bëggoon na xar géej gi coow li bëri préfet woo ko mu reporté ko ba jëmmi jamono jëmmi jamono mun naa nekk eh, eh, février wala mars yam li xaa dama lay expliqué ñaar gu koy dégg sëñ ji li hmm. dama ñaar gu koy dégg su ko préfet joxoon autorisation sax du fa teg tànkam jour boobu billaahi wallaahi wa loolu paase na xarul géej gi weesu na yow loo mën a xar yow man mënumaa xar dara <laughs> géej maam yàlla gii nga ma wax la ñaar gu koy dégg ah. ñett ñi la ko suñ borom mayoon ñu def ci liñ ciy def. Mhm. mu yonent yàlla Moussa. Mhm. Seydina Limaamu. Mhm. Serigne Touba. ak ki nga xam ni moo nekkoon euh, euh, côté àll bële euh, côté Gàmbi gi. tam doxoon ci ndox mi yàqamti woon. ba période boobu laa koy doon. jéggi oto bi ak waaw kay. am na ko waxoon ñooñ la suñ borom may. waaye li ma mën a xam boo xam ne mi moom. war nañ xoolaat seen toogaay ak seen doxalin. surtout yéen sëriñ si temps yi match bu génn. ngeen wax ci équipe bi ah ay équipe nationale ngi nii war a football. fi mu toll nii xoolal tey rek. avant ñuy dóor non tey rek avant ñuy dóor. idi problème lañ ci am. man de yëguma ci dara dernière minute Sénégal am penalty ñu dugal. Serigne si ah, commencé nañ am na ku ma dégg mu ne Sénégal day door 2-0 te gisul sax 2 seenu sax 2 Ah, Gambie tamit fi mu toll nii dem na Coupe d'Afrique xanaa boo jaalalu équipe nationale bu Sénégal Idi di nga jaalal Gambie. <laughs> Ah. xam nga eh, ndeysaan eh, Idrissa dafa weex dunko Idrissa nit la koo xam ni day bëgg defar. Hmm. ba leneen fekk ko ci. lu ñuy ñaanal réew mi mooy yàlla leen yàlla defal jàmm. mus nañ laa yóbbu indiwoo dara kat. Euh, daaw daaw yaakaar naa lañ la yóbbu indiwoo dara. ma dem bëri na de. ah ren euh, ñu xam ne Idi. parcours bi ma def. waaw Idi kon ren. njort nañ ñu mënoo indil dara équipe bi moo tax ñu bàyyi ko déglu ma rek parcours bi ma def. Hmm. nañ ko na ko nit ñi def rek. je suis mal placé pour parler de l' équipe nationale du Sénégal. ah ñaanal leen ndam dong la war. dégg nga ndax citoyen nga doomu réew. sëñ bu ñu leen yóbbuwul. ngeen yàqal équipe bi ba mu ñàkk. sëñ Jili. man man ma wax la ñaar ko koy dégg. Hmm. man aw ma jot sax pour xeex doomu Adama Ndiaye. bay xeex équipe nationale Sénégal ndax ki fa nekk muy la ministre des sports sama papa la. lu tax demoo. jiili yàlla lu mu tuddul munu ci dara. déedéet Idi am na loo def. lu tax demoo waaw jiili. yàlla toog bi ñu toog fii sax yàllaa ko tudd. waaw defal naa xam nga jiili. yàlla bu ñëwee rek yàlla moom kot la. yàlla bu ñëwee rek léppay tëdd. waaw defal naa jiili. wa xam nga xam nga kaay ma dimbali la. Mhm. kaay ma dimbali la. Mhm. te ka ngay dimbali bëggul nga dimbali ko. Mhm. est-ce dimbali ko dina sotti. déedéet du sotti. xam nga du sotti. Mhm. Euh, je te exemple nga déglu ko. Mhm. xam nga li ma mën. wax ne sàngam ak sàngam nañ ko def. man mooy que je que je pars. ou je ne pars pas ou Sénégal li ma mën mooy a ah, sangam ak sàngam de gis naa ko ñi ma ko wara a wax wax naa leen ko. ñi ma ca war a jëflanteel jëflante naa ñoom. waaye duma ma forcer nit par la force da ngay def lii. Mhm. waaw la ma cay gis tamit gis naa ko ña ma ca war a waxal waxtaan taan naa seeg ñoom waaw. mosal ma ci dara ma am en exclusivité bi ci wasaare lamb équipe nationale bu Sénégal. di dinañ dem quart de finale demi finale wala coupe bi sax yaa xayta ren dina ñëw. ah sëñ Jil nag wax dëgg yàlla ak bi ren moom je suis mal placé pour parler xam nga man la je suis mal placé pour parler. Hmm. li ma la mën a wax ba wax la ko mooy ci kàttanu yàlla bu soobee yàlla ak yonent bi daal nañ leen ñaanal jàmm rek. ñaanal ñaan jàmm. réew mi nañ leen ñaanal jàmm rek. réew mi moom dañuy am jàmm ndax ñëpp ñaanal nañ leen bàyyi ñu dem lan nga gis. Idi bul ci def code yow tamit. non après di fi ñëwaat ñu toog waxtaan suñu suñu fayee suñu fayee suñu ñeme nga am nga fit te sañ nga loolu dëgg la suñu fayee suñu mhm. ma wax la li ma la war a te di nga fi ñëwaat toog ne Idrissa Ndiaye moo ma wax lii. kon Idr li ngay wax donc ko ragal. du question dama bu fekkee ñi ma ko bokk ak askan. ma ko bokk ak askan gi. su ma waxee day mel ni dafa am lu ma denc sama biir xol déedéet c'est pas le de parler. ñi ngay waxal ay borom xel lañ sénégalais yi lay seetaan ay. borom xel lañ déggoo c'est pas ngi leen di déggoo ma xanaa Sénégal li ma mus a ànd ak moom. 5 millions bu mat ñu ma kaa jox. ma wax ko tey nga dégg ko. am li nga tukki yëpp ana ñoom. billaahi wallaahi wa taalaahi. kaamil laa yor nii. barki hmm. Serigne Fallou Mbacké. musuma lekkal équipe nationale Sénégal cinq millions musuma lekkal équipe nationale Sénégal trois millions. un citoyen boo xam ne day volontaire laaj leen ay sarax ñu génne ko ñu ànd moom mu siy jàpp te yàlla tax pour mu leer si bëtu askan bi. kon ñu doon wax Idi dafa lekk suñu xaalis. dañ ko yóbbu tax xamul dara. je kon da nga demoon rek ngir jàppale réew mi. Euh, ma wax la ñaar nga koy dégg. Mm-hmm. tey fekkoon ku nekk suñ waxee si nit ki nga génn défendre ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ils sont mal placés pour génn dama défendre parce que ay kilifa lañ. Mm-hmm. Sénégal li ma ànd ñoom ñëpp balaa maa dem stade dama leen wax résultat match. li nga ànd ñoom ñëpp. déggool ma ne avant yu ma ànd ak ñoom muy ba ñuy gagné Pologne. final euh, bi ñuy gagné Pologne euh, euh, comment dirais premier match coupe du monde. trois mois avant résultat bi dama ko joxe jox ko ñi ma ko war a jox ñu ngi may dégg man dama bëgg ne Idrissa Ndiaye lu mu ci wax mu doon ay fen wala mu doon ay naxe ñoom ña ma doon sékkal nañ génn tontu. kan kan nga ci doon sékkal. non non du question non non du question tey c'est pas le moment de tudd de citer lii wala de citer là mais nit ki su lay jàppale te yàlla tax. Mhm. rend lui la monnaie nga xam ni. tey li may volontaire gi may def di jàppale réew mi. Mhm. su ko ñëpp doon def coupe bi ñëw na fi bu yàgg de. loolu dëgg la. j'aime ce pays nag set nation. Mhm. mais nag du ma bëgg nation bi ba ñàkk fayda wala bay waaye di loo sama bopp di ma ci fekk déedéet. Mhm. te bis boo fayee caméra yi ma wax loolu loo xam ne du lu dañ. te loolu bis bu ñu ca yeggee yow ci kàttanu yàlla nga ñëwaat dékkaat ma micro ma tontu la ne la lan moo taxoon waxuma ci. te li ma lay wax nii je pèse bien mes mots. je pèse suñ fayee micro yi ma wax la mu yam si man ak yow ngir jëmm sëriñ Touba même loolu su amul génnal nga siwal ko nekk Idrissa moo ma waxoon lii te ma lay wax mooy am xanaa déggoo li ma la. di daa mel ni décidé nga de. billahi wallahi wa taala Serigne Abdou Karim Mbacke du ma ko waxee ay caaxaan Serigne Abdou Karim Mbacke du toog di ko sosal si ab micro wala ab télé wala ab leneen. Mhm. daf maa dee wan ma ma gis. ma borom makaarimal axlaa daf hmm. maa wan ma gis te du ma si demantu di waxti lii wala laa nañ may gis ak nag samay ñetti kilote wala samay ñetti leen di ma xeeb. Hmm. ñu dem ñu xool ba ci kanam. Gambie nag équipe nationale bu Gambie tamit dem. non non man xam nga affaire équipe nationale ak ay yooyu moom. non mais Idi munoo nekk ci ñaari. réew waaw li ma leen di ñaanal mooy yàlla defal leen jàmm si barki Seydina Muhammad. non Idi tamit nan nga. waaw non non xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga actuellement nii. gis nga waxu Coupe d'Afrique bi nii waaw defal naa rek non non waxu Coupe d'Afrique bi nii. waxu non déglu ma waxu waxu Coupe d'Afrique bi nii. c'est pas le moment. Hmm. nee naa la su ma paree ak yow ba wax la li ma leex su la neexee nga enregistré ko téye nga la nag bis bu wax amee. bu buñ taxaw ne Idrissa waxula woon ak ñoom ngalla rek def naa sama devoir li ma waroon def lépp. mais tàqalikoo ngeen ci jàmm ci tàqalikoo bu rafet. man awma kenn problème man taalibe Serigne Fall la sama xol bi dafa set wicc idée bari ay noon idée bëri ñu ko bëggul. Idi na da ngay déranger de xaw ma ñan ngay. yàlla yàlla moo ko def déranger Idi. Tunisie Sénégal dañoo taxaw si biir avion bi laa ne leen carrément ne leen match bi 2-0 ne leen penalty day am si bi premier bii bi bal arrêté la. contre ma taxaw ne leen balaa 30 minutes damay dugal ñaari bii man li may wax day am ay seede am ñu ko fekkee. tey de benn bii bi yéex naa dugg. comprends pour naa benn bii bi tey suba dama ko wax sama xarit yi ñoom ñëpp. billaahi wallaahi wa taalaahi soo bëggee léegi ma woo ñoom ñëpp ñu ñëw. nga leen Sénégal. ñoom ñu taxaw man leen match bi mënut am ñaari bii benn bii lay am te deuxième mi-temps la bii bi di dugg huit laa leen ko wax. xanaa looloo gën a dee daa am lu solu guddi gi di la wax wala da toog guddi gi di ci liggéey. wala la wax di la la déggoo de cees ñëpp ma ko xamee su ma duggee stade dama naan camp yi moo am bii camp yi amul bii loolu yàlla jagleel na ma ko gis nga àdduna nit ki. tur yàllaa koy def si nit sama yëngu-yëngu yàllaa koy def si man tey ñoom kenn xamul woon di nga doon ministre wala di nga doon député wala di nga doon président waaye Idrissa nag day def lu baax bañ ko cay fay lu bon waaye rek Idrissa moo toog maa ngi sant yàlla maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi sant yàlla maa ngi julli si yonent bi su ma amee sama 2000 francs maa ngi koy sante yàlla suñ borom ñeewu ma ko am million de waaye nag bëgg réew mi jëm ci kanam bëgg réew mi dem ci kanam des fois moo lay tax nit ñu foog ni da ngaa ñàkk fayda wala da ngaa waaye di déedéet ñàkkuma fayda bëgg réew mi am jàmm ndax Sénégal su fi demee Coupe d'Afrique indiw fi dara réew mi doom am jàmm. déedéet. kon Idrissa Ndiaye mu jug gis la muy gis wax la muy wax ngalla waay nañ ko déglu waaye duñ ma déglu ñeneen la ñuy déglu. baax na. kon baax na dégg ngeen ko wax ju am solo boobu Idrissa Ndiaye wax ko combat Modou loo Ama balde damaa bëgg rek nga ñëwal ma ci tuuti Idi li ma bëgg njëkk a xam mooy combat Modou Lo Ama Baldé est-ce que dina am le 13 mars. xam nga combat boo xam ne signature yi boobu ba tey mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi yàqu. Hmm. te jëlaguñ ci matuwaay gu ci war. Hmm. suñ ci jëlu matuwaay gu ci war. Hmm. te man sax su ma sañoon combat bi du am. lu tax loolu Idi. promoteur bi investir xaalisam mu tëdd fa bu yàgg. xam nga dinaa la xamal ñaar nga koy dégg ji gis nga combat boobu. Mm-hmm. bis bu jël amee. Mm-hmm. si ñaari côté yëpp. Mm-hmm. di nga dégg lu la naqari ci biir stade boobu. donc ko jort donc ko gis lu ma gis nii la. 2022 bi dina bëri luy xew di xewaat. mille 2022 bi dina bëri ay mille déception. 2022 bi dina bëri ay yaakaar yu tas. yàlla nañ ci yàlla musal. déggoo lu ma la de dina bëri ay yaakaar ci dina bëri looy séntu ba nga foog ne ma ca mu yàqu. combat bi su ma sañoon dañuy ñoom ñu waxtaan ak promoteur ku nekk delloo promoteur bi sa xaalis ba keroog yàlla di ko tëgg mais do do actuellement nii nii li ci am moo ña moo xaw a moo commencé départ doonatul combat. loolu ci mystique la wala mbëri yee génnee sarax yi ñu war ta laal wala dañoo commencé. xiifante je me rappelle bien. benn bantamba lañ doon seetaan kër ñoom Ama mu ngi ci kaw ñuy préparé contre guy gi ñu wane Modou Lo rek mu taxaw. Mhm. ne kii laa soxla xëy na moom fàtte na ko mu ne laa soxla ma ne ko yow yow ñëw ñu préparé suñ combat bi mu ne kii laa soxla kii sama bët fii laa teg. nga xam ni kon loolu lu yàgg la lu yàgg bëgg la. Mhm. Modou tamit di ko bàyyi xel bu yàgg. ndax Modou xam na ne lu mu yàgg-yàgg làmbam ak Ama dina taxaw mu koy bàyyi xel bu yàgg waaye nag yàlla baax na. Hmm. waaw yàlla baax na. loo ci gis. li ma ci gis mooy xam nga nee naa la man côté Modou Lo dama fa may am di jàmm. am fa dóor mu daanu dégg naa dina am ci combat bi am na ñoo xam ne yanu ba ci kaw dóor ci suuf sax. waxuñu ko de mais nee na sëlëm sax dina ci am sëlëm incha allah. su bi jege incha allah ci kàttanu yàlla. Hmm. wala suñu nee suba la combat bi soo ma hmm. déggee micro la. ah kon kay mooy combat bi dina am idi. waa déggul ma dama la xam nga euh, euh, maanaam lu jege seegul moom du ma ci waxagum mais suñu nee suba la combat bi xëy na sax dig ma gis parcelle googu. incha allah nga ànd ak Modou xarañ loo dama la xëy na. di ma gis parcelle nee naa la. mooy Idrissa Ndiaye day de. nee am na ay transhumé na léegi transhumant wu Serigne. jugee na ci Ama Baldé. non non dem na ci Modou Lo. la jugee na ci ci ci ci ci Balla Gaye dem na ci Modou Lo. Serigne yi ngi transhumé daal. kër soo fay dëkk. kër soo fay dëkk ay locataire hmm. te may ñu la jàmm nooy def. locataire tëxu bu dee bëgg nga jàmm. waaw ah. léegi ma dëkki ba parcelle. locataire yëpp bëgg ma am ak man jàmm. ña jege borom kër gi bëgg ma di ma jàppale di ma suturaal di yëkkati di am seeni problème di ma ko ma leen koy saafara di ma sant ay liggéey mais soo dee gor borom kër ga lu mu nekk war nga caa nekk. kan mooy borom kër gi. borom kër ga mooy Modou Lo. Hmm, kon yow da ngay ñaanal bu baax li ma wax la. borom kër gi am soxla di la ko wax nga koy fajal. déglu te Modou Lo mooy borom kër gi. soo dëkkee ci kër. waaw ak ay locataire amoo fa jàmm. Ah. nga dem ba parcelle. Ah. dëkk ci biir kër ga. waaw yi may la jàmm di la jàppale di la yiir di la yëkkati di la jox. borom kër gi. dégg locataire yi. di la jàppale di yëkkati seen alal di la jox di am seen problème di la ko wax. Hmm. locataire yi suñ joxee bopp borom kër gi. Hmm. sooy jàppale koy jàppale borom kër gi ngay jàppale. dëgg la. te ñooñu noonu samay nit lañ dañuy déggante ay seen numéro WhatsApp maa ngi seen lépp. Hmm. te yow su lii jeexee dinaa la kan ak kan ak la ci. wan la seen kii nga xam. à part Modou Lo kan ngay ñaanal ci làmb ji. idi musuma laa nga wàcc stade ànd ak doomu dàngu. Hmm. wàcc stade dañ pour naan ànd ak Modou Lo contre Jordan contre Jordan dafa waroon am de. idi mi doon wàcce ak idi mi gisatuma ko. mais du question loolu. idi gisatuma la de non non ma xanaa. idi mi daan takk ndigg benn seconde bu xonk. <laughs> sol lu xonk li takk ba xam boobu ci bopp bi. <laughs> idi boobu ah? baxale boobu bari ay kii ay car-car mu ngi nii sama xarit bi. yaa ngi dégg baxale bi maa bëgg. ma wax la nga koy nga koy dégg. Hmm. gis euh, euh, doomu sama mbër la sama xarit la. Hmm. waaw mbëri bëri naa si ay xarit de. Hmm. bëri si ay xarit bëri naa si ay soppe. ak yére yére bu xonq ba. yére bu xonk baa ngi ne yére yii moom lan lay xaar pour génn lu tax solo ko. yii de dina génn incha allah ci kàttan yàlla. lu koy génne. gis nga première jour bi may teg sama tànk ci làmb ji di indi mbër. ci la ma àdduna di gën a xam. idi mbaa doo indi mbër daanu. du ma indi mbër biir stade boobu ci kàttanu yàlla di daanu. bu soobee yàlla yonent bi. idi vaar am na de. déggoo lu ma xanaa. te booy ak ma xanaa bu bis boobaa. sama xarit nga de. booy dañ lay TikTok de. déggoo lu ma xanaa bu bis boobaa ci kàttanu yàlla. Hmm. yow bis boo ma séenee si làmb ji ma dugg ci duma ma sol lii de. Hmm. beneen melokaan ngay gis Idrissa mel ko boobaa di nga ni ba ma loon fekk këram ak Idrissa ba ma loon gis si image yi non kanamu Idrissa bi beneen kanam la. jili mën nañ te yàlla may nañu. kon ñu xaar Idrissa Ndiaye le 13 mars incha allah mu wàcc arène nationale. man daal waxuma la le 13 waxuma la le kii demal la. ci kattanu yàlla bu soobee yàlla ak yonent bi. Hmm. Idrissa mbër bi muy njëkk àndal fii moo xam fu mu munti doon. jour boobu àdduna. Hmm. dinañ taf seen làmmiñ ci kàttanu yàlla. am na solo wolof daf na lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cindi uh-huh. maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa. ci guddi na loolu. Uh-huh. ma yëg ni da ngay da ngay da ngay dem Gambie. Uh-huh. profité pour jël la. balaa ngay dem. Uh, Idi am na soxna. waaw am naa soxna. ñaari soxna. benn soxna la am. am nga tut tànk. am naa ñaari tout tànk bu góor ak bu jigéen. macha allah. kañ ngay fas yéene takk ñaareel. suñ suñ suñ tabaxalee suñ yaay kër ba pare tabaxal suñ papa kër ba pare ndax ñu ngi ci tànk yooyu ba pare suñ ko tabaxalee ba pare ba dugal leen fa ñoo nekk ba pare nag incha hmm. allah ci kàttanu yàlla hmm. waaw jabar du wees nga takkaat ñaare nga takk ñaare jabar du wees su ay soxna moom du wees bëgg nga am ñett ñeent waa dañ la neen kilifa dëgg hmm. war na mën am ñeent soxna waaw ah, su ko matee dëgg ah loolu la loolu la mag yi doon wax waaye nag actuellement ñu si ay projet projet yi nekk mooy dimbali néew ju doole yi def si wàllu social. Mhm. dimbali tamit ñi nekk bitim réew am ay problème si mhm. projet yooyu lañ gën a nekk actuellement ni ak jàppale taalibe yi nga xam ne dañuy nekk si mbedd beeg yooyu du ñu am ay dàll du ñu am ay yére yuñ sol. si mhm. projet yooyu laa ëpp lu mooy nekk actuellement nii. loolu mooy sama deuxième femme ba pare. Hmm. Euh, jeunesse su Sénégal bi. Hmm. actuellement laa bëgg nga tëjee ko mooy jeunesse bi dañu gis benn jeunesse bu violent. Hmm. gis jeunesse boo xamante ni saagante ci TikTok bi ci internet bi làmb bu amee xeex newetaan xeex yàq stade damm euh, tirbine bi yàq gazon yi nan nga gisee jeunesse boobu actuellement. du ñoom ñoo koy def de. Hmm. réew mi dafa baaxoon ay jamono su réew mi yëngatu woon ñu seeti kilifa yi ñiy wàcce kaamil wàcce kaamil. Hmm. ñiy tuuru tuuru. Hmm. ñiy wasifa wasifa. réew mi dafa manqué loolu. kon foobee ëpp jaamu yàlla le Sénégal a perdu ses valeurs culture. et ses valeurs religieuses da ko da dëgg moo neex yàlla. Mhm. réew mi kenn xamatul lu muy nduru moo tax ku ci yor sab mbokk yàlla may la nga mën a xaatim tuuti tomb mhm. tuuti. Mhm. dee ko jox muy sangu yàlla suturaal ko si wàllu cat ak yooyu. jinne yi dañoo dugganteeg nit ñi. te déggoo lu ma la yàlla na yàlla def jàmm si coupe d'Afrique bi dama la ko wax boobu ba tey. jàmm fan fii Sénégal. wala jàmm ci. xale yi mënatuñoo xaar. génération bi ma gis. Hmm. xale yi ma gis. Hmm. mënatuñoo xaar. amatuñu patience amatuñu xamatuñu luy ñàkk. xamuñu luy ñàkk luy xaar. kon li laay war a suuri ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si réew mi jiite hmm. réew mi nañ ñu déglu. ndakaaru dafa am luñ fi war a def nañ ko def jam ñaajo dafa am lu fi war a def nañ ko def. teer bi ñu taal barkaati Demba Ndiaye di ko di ngal la am na lañ fa war a def ndax am na la fa dëkk li may wax nii képp kuy borom reen bokk si fukki penjeeg ñaar wala jaraaf yi sundoy wala keneen ak keneen ñu ngi may seetaan xam nañ bu baax li may dëgg la wala du dëgg jam ñaajo dafa am lu fa dëkk ndakaaru am lu fa dëkk teer gi fa muy aw am lu fa dëkk waaw léegi nag ñooñu nga dindi seen i yëpp dindi seen i lépp baleen xoolal rek ba xam ba xam askan bi dinañ am jàmm déedéet. ku la wax tuuralu ñu teer bi fi mu. amoon yow noonu tuuruñu dara. defuñu ay sarax defuñu dara. defuñu dara. kan lañ ko jox. non mun naa bañ a yegg ci yow. sarax bi mun nañoo bàyyi ba 5 ma xanaa waaye cinq heures di ma ne déggoo ma xanaa dama ñun lébu yëpp suñu kilifa jaraaf yu suñ doy la te suñ ko ko joxoon dina woote lañ ca war a def ñu def ko ca ku ci nekk la sa wàll lañ ca war a def danga ko cay defe ji nañ waxante dëgg. réew mi dañuy jënd suñuy nag dem ba sumbi jum taxaw di ñaan jàmm si réew mi te jugewul si état soo leen jegee sax seeni porte parole sax pour wax leen yóbbante sax duñ ko wax wala nga leen di woo sax ñu lay bañ a jël téléphone loolu moom ma si lu fekkati su réew mi di tàkk maa ngi sama biir kër gi toog bam sedd ma doog a génn. ah mais kon doo am jàmm de. déggoo ma la eh, eh, jarbaat say doom ñooy jili na leer de. da ngay génn si nit ñi ñu ne la xol bi dara nekku si. Mhm. mais su décidé rek su ñëgee rek ñëg na sama xol bi dara nekku si. mais yéen yi day nduru maanaam ñàkk fayda lay commencé nduru. waaw Idina li la metti ba léegi nangu woo dé dé junj rek non non déggul ma mhm. bi laa bëgg nga leeral ko. tojal koko bi ndox bi tis ñu benn yoon Idi. <laughs> ah Idi. man man ma la xanaa bi may toog fii ay kilifa ñoo ma yab ñoo wax man. Hmm. te du ma def émission boo xam ne jaraaf yëgu ko. dëgg kon nag ni may waxee ak yow nii rek sànq ba de mun naa la ay journaliste yoo xam bëgg nañ ma jël émission ma taxaw bañ du nekk fu ne ngay génnee sa gémmin rek wax tardal sa bopp suñ bëggee réew mi am jàmm xam nañ nu ñuy def suñ bëggee équipe bi indi ko xam nañ nu ñuy def ñoom ñoo la gën a xam lépp da leen di neex rek ñu ignorer la de. Mm-hmm. waaw mu ngoog. maa lay jëfal bu baax idi kontaan naa bu baax a baax a baax ci dalal bi. dama mhm. laa na mën a gëj laa dégg. gëj laa jël. gëj laa waxtaan ak yow. ñoo la gën a ko di wax di wax di wax waa Gambie. nañ mhm. ma nañ ma xaar incha allah. Mhm. dinaa ñëw àllarba ci kàttanu yàlla. numéro yi ma yoroon Gambie ba tey moom laa yor. mooy sama numéro 287 3324 mooy sama numéro Gambie. sama numéro Sénégal 77 378 07 00. Mhm. sama beneen numéro Sénégal bi 77 094 90 39 mooy numéro WhatsApp yi day fonctionné. Mhm. képp ku ñu sekkal tamit ñu ngi ñaan yàlla yàlla nga ci gis sa njëriñ si darajay Seydina Mohamed si darajay Serigne Fall bi ma yaakaar. Mhm. kon waa Gambie nañu xaar Idrissa Ndiaye sa tur bi dina fa ñëw. incha allah muy àll leen ko ba mu yëngu. ci kàttanu yàlla équipe nationale <laughs> mun na ko mun na leen indil coupe bi xam naa ni tôt ou tard vite fait day def rek balaa vingt cinq minutes balaa trente minutes nga dugal ko xeli xeli xaw a dal tuuti eh. loolu dafa baax si football yor ko minutes de dugal waaye déggoo la ma xanaa quinze minutes de jeu nga dugal balaa balaa minutes ma dugal supporter day lay loolu day rassurer ay supporter ndeysaan teel a dugal teel a yeewu askan bi dafa neex. dugal boobu daa baax ci lépp. dugal boobu kilifa gi dugal boobu lépp man bëgg laa ci dugal waaw. man dugal boobu dama ko bëgg sama. yàlla yàlla defal jàmm man naay dugal rek. man xaalis boo ma joxee ma dugal. yàlla ah, yàlla yàlla yàlla yàlla defal jàmm. te xam ne ah. Idrissa réew mee ko ñor. dëgg la Idrissa. sikk hmm. na lépp ñu ngi ko koy waxal waaye réew mee ko ñor. jërëjëf Idrissa ak ñoo xam ne réew mee ko ñor ak su ma yoroon ay milliards boobaa dinañ xam ni hmm. kay takk cravate di toog si bureau wala kay yor ndombal tànk di takk si bureau hmm. lu def si réew mi dinaa def lu ko raw te boobaa dinañ xam lan te ci kàttanu yàlla réew mi dinaa fi am monument hmm. total dama ko fi waxoon ne leen wax ko fi sama émission ne gëm naa man li ma gëm mooy incha allah Sénégal su fi indi Coupe d'Afrique man sama loxo yi da ciy bokk gëm-gëm bu ma am la te gëm-gëm boo xam ne Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa doole yi Serigne Fallou daf ma ciy dooleel. Mhm. te lu ma gëm la te loolu day am. jaajëf am na solo maa lay jaajëfal bu baax idi Idrissa Ndiaye di la ta di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ak beneen kilifa Idi maa lay jaajëfal bu baax. jërëjëf kontaan naa yàlla na leen yàlla defal jàmm.